pas mais dafa war a leer ah dossier justice la quoi xanaa surprise bi rek moo li ci am mooy mooy euh, euh, yaayu Marème fii quoi. Ah, waaw waaw yaayu Marème yaayu Marème a feeñ quoi. Mhm. pas donc euh, justice que justice soit faite quoi. Mhm. ñu xam lan moo ah. ko und quoi. parce que tey information bi dafa incomplet mhm, yaayu Marème Faye Sall la convoqué ak Adama Faye mhm. problème de foncier mais waxuñu exact ah, waaw li xew le pourquoi le pourquoi su boobaa loo ci loo ci loo ci mënoo doo ci mën a avancer quoi en quelque sorte parce que da nga bon lenn rek mooy que surprise bi mooy mhm. yaay ji quoi comprendre mais bu fekkee ne amuloo matière bi amuloo contenu bi su boobaa mhm. tu vois je ne sais pas quoi donc euh, que justice soit faite quoi loolu rek lañ leen di wax quoi xam naa ni gàcce nag quoi gàcce mm-hmm. la parce que lañ doon daw ci Ablaye Wade moo ñu dal lu raw loolu moo ñu dal ci ci ci ci ci Macky parce que Ablaye Wade euh, liñ doon daw foofu mooy état boo xamante ni sa njaboot yëpp da nga di dugal ci biir. Mm-hmm. moom heureusement ba nga xamante ni njaboot tubaab la yoroon quoi papa yaay ak ñaari doom mais kii nag papa yaay ay doom ay mm-hmm. jarbaat ay sët ay mbokk ay kii ñëpp ci biir c'est extraordinaire quoi mm. li li gàcce la quoi. waaw gàcce la quoi. man mun naa ne Marème Faye Sall bi nekk première dame ci ndiiru 12 ans kenn mësul gis yaayam. kenn mësul gis yaayam kenn mësu ko xam. kenn mësu ko xam kenn dégg yaayam jékki-jékki kaay sa yaay ci coowal suuf. tey ku gàtt xel mun nga ne euh, nguur gi la dañ ko takkal. non non pourtant mën na nekk loo xamante ni prête noo la ah. Mhm. prête noo la man nag bon ci ay rumeur moom bon yàgg naa dégg ni yaay ji affaire affairiste la ah. waaw yaay rumeur yàgg naa dégg yaay ji kan yi xam mhm. ay doomu milliardaire rek la yor ah. yaay ji moom waaw. Mhm. borom borom. borom koom-koom parce que fan yi rek lañu lañu lañu sàcc ay bijoux yu bare bare. ci këram gi fii waaw yàggul matagul sax 15 jours ah. bi ñu koy wax gàcce la quoi. Mhm. gàcce la yow ko def état ba jéem ñuy woo sa yaay di ko yóbbu tribunal. ci des problèmes de boxe mhm. am na yoo xamante ni kenn warul ci sax tudd ko mhm. kenn warul la ci tudd quoi gàcce la ci moom gàcc la ci Sénégal tamit na doy na waar gàcce ci moom gàcce la ci Sénégal parce que Sénégal tamit nañ waxante dëgg ko vraiment fal nit mu jël njabootam yëpp dugal si biir hmm, comme na mel njaboot askan bi yëpp ba fal loolu gàcce la quoi kooku gàcce la ko élément mhm. looy wax ci lii. man man xam nga yenn yi yenn kii bu amee balaa balaa jusqu'à la preuve du contraire. Mhm. dama naan li ma doon wax rek gaa yi doon wax net euh, net da ko bandu. Mhm. mais nguur gi fi nekkoon nekkoon net da ko pàccoo la doon def. net da ko pàccoo. sama goro samay rakk. samay doom. kon lii yaakaar naa du bett kenn ñu du bett ñu baree bari venant de nguur gi jógee ak ci famille ci famille nguur gi fi jógee. Mm-hmm. mais bu fàtte ni. <laughs> tamit Marième Faye Sall mu nekkoon patron Macky Sall de wala da nga koo fàtte. moom Marième doomam. Mm-hmm. maire bu ñu taxal nii. Mm. wala bu ñu woo nii. Mm. doomam mooy patron wu Macky Sall mooy patron wu président bi. Mm-hmm. mooy patron wu jëkkëram. parce que gis dañu gis fii ab ministre mu taxaw ne suñu ma falee c'est grâce a Marième Faye Sall. kon moom maanaam Marème Faye Sall demoon na ba am sax doole ci état bi. di tànnloo ay ministre waaw. kon kuy dem nag bay fal ay ministre mën ngaa jox sa yaay. Mm-hmm. ba nag jusqu'à la preuve du contraire parce que ku nekk bu ñu la convoqué da nga koy jox présomption d'innocence. Mm-hmm. waaw dañ koo convoqué gum ñu ngi xaal ñu xaar lu wànnent di mujjee ki gëtëm. waaye dañuy wax rek ne. Mm. comme ni ma leen ko waxee rek net da ko pàccoo dafa amoon ci réew mi. Mm-hmm. bu fàttali ni tamit ab doomam ci Covid wàllum Covid 19. Mhm. ci ay mille mille ci ay milliards. jamono bi nga xamante ni sénégalais yaa ngi sonn sénégalais yaa ngi dee sénégalais yaa ngi ñu ngi naan ñii dañ leen a euh, ñi dañoo faatu ndax Covid 19 ba dem sax ba ne euh, ay surtout sa téeméer joorin indi cent franc man ma indil deux cent keneen fukki dërëm wala dara ñu dajale. Mhm. pour faj wala pour sauver pour pour xeex. Mhm. feebar bu yées bi fi nekk bu bon bi. ne ñu ñu ne ne ne sax on est en guerre maanaam dañu nekkoon en guerre ak ak ak feebar bi. Mhm. ba sëñ Muntaxa mi nga xamante ni yëkkati xaalisam def ko ci. Mhm. ñu ne Furaas daal di xëdem doomu maire bi ñu convoqué moo la ñu la rapport génn. Mhm. ñu ne moom moo ne dënniix ay milliards. rapport ko wax nag ba léegi ñu ngi xaar mu leer man ci rapport yi looloo ma ci gën a amal solo muy rapportu Covid 19 bi. parce que jamono jooju lañ tëjoon gars yi. tëj soo xoolee mimi moom mimi loolu la ko. moom mimi loolu andi woon seen coow. économie bi dee ñu jàpp doomu aadama yi tëj ci kër yi ne bu leen génn man mii jàpp nañ ma ci jamono jooju fayloo ma 6000 francs ndax masque bi ma takkul lépp ndërmeelu. Mhm. banques yi tëj ñii ñuy dàq seeni seeni seen mhm. dégg ñu dégg après am na ministre bu sàcc ay milliards rapport génn waaw rapport sax mun nañu wax ni mun rapport mun na génn ñu ne sàcc ko waaye dégg nañ fi daal. ay scandale yu doy waar. yoo xamante ni maanaam fu ceeb bi waroon dugg nga war a jële ay transporteur dugal ko fa nga dugal ko ci oto mbalit. Mhm. yëpp dégg nañ ko fi de te kooku doomu maire bi maire bi moo ko jur tey mhm. am na wolof ñaa wax doom ja nday ja. Mhm. <laughs> kuñ ko kuñ ko wax nga mel ne sa ndayo jub <laughs> waaw <laughs> loolu la wolof ñaa nday ja kuñ ko wax moom. bu la neexul sa nday ja moo jubul waaye man day. gëm naa ne bu ñu ma nee sa doom doom ja ndey ja damay kontaan non moom laa wax ni gàcce la quoi nag moom sama wax ñëwaat euh, mooy maanaam mhm. nit ñi ñoo jommatul woon mhm. maanaam nit ñi xaatuñu woon ëllëg xam mhm. suñu mag yi dañ daan wax naan man de sama doom bu màggee bëgg naa mu dégg ci man lu baax bëgg naa ëllëg sama way mu rafet ba ñu naan sa maam moo fi defoon lu baax lii sa baay moo fi defoon lu baax lii waaye nag ñun ñi ñi ñi ngànkoon pouvoir bi seen yoon nekkatu ci woon ci loolu ñoom ñoom soraale wuñu woon maanaam ëllëg soraale wuñu woon ni ëllëg nettali ba dafa war a rafet nettali ba dafa war a baax mais tey lii c'est lii se écœurant tey Abdou Diouf mu nga nekkoon na fi. Mhm. dem na kenn déggul njabootam ñu ne sàcc na lii wala nekkoon na lii wala def na lii Abdoulaye Wade mi ngi fi woon. xanaa amaana doomam lañ jàpp tëj wala dara waaye ba léegi kenn dégg ko ci yi nga xamante ni ñàkk na. fayda wala dara waaw ci ay yaayam wala dara. Mhm. mais si seen mais mënoon nañu wax ni sax porte portefeuille ministre def na ay délinquance wala def na yu kii comme ni ko Karim Wade li ñu ko ko jiinee woon wala dara. Mm-hmm. mais yow sa yaay lu ci yoonam ci état. Mm-hmm. lu ci yoonam ci ab suuf. Mm-hmm. <laughs> waaw day andi polémique yu bëree bëri ci xel waxee man ah. mbëkk suuf xale laa ci xamee woon bébé <laughs> mu raam ba daw ci suuf si mbëkk te boobu day fekk sax nga dëkkoo ci étage yooyu nga day fekk nga dëkk fële foo xam ne am na suuf wala kuur ba am suuf nga laam ba ba yegg ci suuf si mëq te mëq suuf sa dafa xeewi mhm. mais gars yi dañoo mëq si suuf si ba doyal ba fatt mhm. ah, ñu ngi xaar nag yoon def liggéey ah loolu <laughs> mais loolu c'est c'est clair parce que tey jamono ji ñuy wax naan ñii am nañ ay ñaata hectare am na doomu sénégalais bu nekk fee di liggéey mhm. bëgg a am as tuut bu mu bu mu tabaxee sax wala bu mu dugal yaayam ak papaam mënu koo am di ko wër di daw ba dee te mënu koo am yéen ngeen nekk di paccoo suuf si comme nu leen neexee ay hectare yu dul jeex. dañu wax dëgg Sénégal doon ñoom doon ñu ko woon ci baay ak yaay moo tax nag ma ne la ñoom dañoo jaawale woon ni dañoo jaawale woon Sénégal que état la du royaume doonuñu ko woon ci baay doonuñu ko woon ci yaay mais ñoom dañoo demoon ba yaakaar dañu ko doon ci baay ak yaay. Mhm. moo tax ñu jëloon di ko séddale seen i gorog yooyu noonu ñoom xam naa ne Macky moom wala ñeneen ñeneen Mariam Faye Sall dañu yaakaaroon ni Sénégal seen kër la woon maanaam dañu yaakaaroon ni Faye ak Sall la Sénégal santoon mhm. donc instant bi nag ñu ngi xaar justice mu def liggéeyam parce que wóolu nañ justice bi fi nekk nii mhm. ñu ngi leen di ñaan ñu def lépp lu war parce que sénégalais yi il en ci affaire sàcc yi ak ci affaire di jël lenn loo xamante ne alalu mbooloo di ko aaximoo yow kese yow ak sa njaboot dafa doy sëkk sëkk sëkk kon na justice def liggéeyam ñi ngi xaar mu leer nañ nañ luñ ci war a def rek buñ ko waree daan amul maire la ak la mhm. amul âge bi la am amul âge bi bu ko war nañ ko amaan bu ñu ko waree ko loolu kese la hmm? xam naa ni kon xam naa ni dossier boobu dañ koy bàyyi boobu ba suba rek ñu xool moom euh, mi nga xam ne moo di yaayu Marème fay sàll ak aadama fay mi nga xam ne rek convocation ba daal dinay jib euh, seen kaw nag ñu fas yéene wuyu ji ba tax na rek ñi ngi taaxir lu fi yëg ëllëg xool lan moo ci daal di ruusandi ndaxte kat doon mbir bu jéggi dayo boo xamante ne tey à une yëpp Sénégal moom la ñu daal di xëyee ak lu ci mën ci am rek dañ koy gën a euh, taaxirlu jawriñ pour terminer rek suba la journée sans presse donc suba presse bi donc dañuy fas yéene rek booloo seen doole ci maison de la presse journée boo xamante ni rek ak ak yelleef la ñuy xeex ni ñu koy xeexee nag moo di.